Kumba Coulibaly présidente SCOFI Mbacké wa tey dañ fi ñëwoon seet si kuréel gu ñuy wax ndeyu daara yi te nekk fi ren mm, di toggal ndongo daara yi ñoom leen seet si woon tey waa SCOFI Mbacké pour indil leen si contribution li tax ñu def ko mooy ñun dañoo yore kuréel goo xam ne SCOFI jàngalekat yu jigéen yi jiite ko fii jàngalekat yu jigéen yi nekk si département Mbacké ñoo ci nekk ñuy def social social bi mooy dañuy jàppale xale jigéen yi pour ñu jàng seen njàng ñoŋ te des ci école yi te ku wax social wax jàppale doomu aadama loolu moo ñu poussé daaw ba reen ñuy ñëw di fekk ci ndey daara yi ci liggéey bu am solo bii ñuy def pour indi leen suñ contribution waaye soutenir leen encourager leen xamal ne leen ne lii ngeen di def kat ñun ak yéen ñoo ko bokk parce que ku wax jàng ci département Mbacké mënoo ko wax te tuddoo daara yi daara yi dañ fee am place ak benn rôle bu am solo bu ñuy joué kon ñoom suñ xalaatee am initiative bu rafet bi pour du toggal ndongo yi di leen yóbbul ñun waa ESCOFI nga xam ne xale rek moo ñu yitteel moo tax ñu fekk si leen tey pour ànd ak ñoom ci liggéey di indi nañ fi ceeb indi fi suukar indi fi tàndarma indi fi dëwlin indi fi kafe naa di remercier rek jàngalekat yi jigéen yi nga xam ne ñoo nekk si département Mbacké parce que tey lii ñu fi indi ñoom la de ñooy dajale seeni i tuut seen i dërëm seen i ñaan di leen santaar rek di leen wax ne ñoom suñ ay sœur lañ ñoo bokk li ñuy def parce que ñun ñëpp social rek la ñuy def ñun ñëpp xale moo ñu yitteel kon jàng ak jàngale rek ci la ñuy yëngu moo ñu yitteel kon nag vraiment bu ñëwee tey fekk si leen mënuñu lu leen encourager leen remercier leen féliciter leen di leen wax leen ñoo ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi parce que li ñuy def mission bu noobul la di leen ci accompagner pour ñu am ci une réussite totale. maaleykum wa rahmatullah euh, Marème Diakhaté la euh, présidente euh, département de Mbacké nday présidente nday daara département de Mbacké. jàngate rek mooy rafetlu ko. Euh, ndax euh, est-ce que fii heure bii daaw euh, lu mel nii defoon nañ ko indi ko ci ndey daara ndax seen gis-gisin bu rafet comme ñoom toujours seen yëngatu ci xale la jëm ak saytu xale ñu gis ne ñoom ndey daara yi ñoo bokk liggéey bi ndax ñoom seen yëngatu yëpp ci xale la jëm ak saytu xale ba waral tey yi ñu toggal donga yi ci weeru koor bi ndax bu dul ko sax leen di toggal nag waaye weeru koor bi da cee rawat ñu di leen toggal ndax yittewoo nga xam ne dongo yi dinañ ko yittewoo ku nekk xam na ne yalwaan moom diggi bëccëg amatul te gu gi nit ñi dañuy guddee di reer moo tax ñu fàllu ci di toggal dongo yi eh, est ce que fi nag ñëw it ànd ak ñoom ci liggéey boobu loolu ñun dañ koy rafet rafetlu bu baax a baax a baax di wax rek ne liggéey bi benn la te ñoom nii ñu ko soobee ñu ne ndey daari fës nañ yéene ñoom it lépp lu ñu soob rek ñu yëg ko ñu ànd ko ñoom comme liggéey bi yëpp benn la ci xale la jëm di leen sant nag baax a baax di rafetlu seen taxawaay ak seen yitte ji nga xam ne am nañ ko ci liggéey bi ba heure bu jotee nu ñu mën a def rek dinañ ñëw fekk seen ndey daara ak seen taraanga ak seen jàppale ci liggéey bi bu baax a baax leen sant bu baax xale yu jigéen ñi ak di leen fekk ci daara yi di leen jàppale di leen dimbale di leen eh, jàppale ci seen wàllu éducation ak seen yar ak seen wàllu cet ak seen wàllu féete leen ci place yaay nga xam ne ki daara ci bëri xam ne ay jigéen ñoo fa nekk Euh, jigéen ñi rek ñoo leen fa mën a fekk di leen jàppale di leen yar di leen éduquer euh, di xool seeni i bëgg ak seen i ket moo xam seen seen i léttu la wala seenu sang wala seen cat yi nga xam ne war nañ ko am ca daara ji di leen ci jàppale bu baax a baax aussi ñoom la ñuy liggéey rek ci domaine yi liggéey yëpp ci wàllu yarub jigéen ñi aussi nday daara yi ñoom it dañuy fas yéenee taxaw ànd ak ñoom ci yow lépp lu ñu ci yëg rek ñu sóobandoo ñoom seen loxo ci liggéey boobu donc maa ngi bëggoon saisir occasion bi vraiment pour euh, féliciter bu baax waa SCOFI muy jigéen jàngalekat yi nga xam ne ci mbootaay boobu lañ nekk am taxawaay bu am solo ci inspection maanaam lépp li nga xam ne inspection bi ñu koy sumb jëmale ci wàllu jàngu jigéen def nañ ci taxawaay bu am solo bu rafet boo xam ne tey dama bëggoon ma féliciter ci de vive voix mais wax ni tey euh, def nañ loo xam ne tamit euh, lu jara lu jara waxla parce que yemuñu rek ci fexe nu jigéen ñi di jàngee ak nu ñuy toogee ci école yi mais dañoo lawal seen activité te loolu mooy forme d'altruisme ah, fexe ba njëriñ la ñu am ci école bi ñu am ko aussi ci daara yi daf naa tey loolu la ñu wone mu nekk euh, benn élan de solidarité ak de générosité boo xam ne bëggoon naa koo rafetlu bu baax a baax li ñu joxe li c'est symbolique mais wane na intention bi nga xam ne am nañ ko pour njaboote ñëpp. pour fexe ba wane ni école ak daara ñëpp benn lañu donc ñu fexe ñu leen jabootee ñoom ñëpp ba pare fu ñu ko defee moo gën a neexati encore muy weeru koor nga xam ne weeru yërmande la weeru dimbalante la donc mu nekk loo xam ne vraiment geste bu bu bu bu touché ñu bëri la geste la daal boo xam ne wax dëgg yàlla euh, rafetlu nañ ko bu baax a baax donc di leen féliciter di féliciter madame Coumba Coulibaly nga xam ne mooy seen njiit ak ñoom ñëpp nga xam ne ñoo ci nekk ci kuréel bi nga xam seen ay moyens la ñu dajale. te pourtant mën na leen ci bañ a fekk parce que am na ñoo ci yeneen mbir mais le fait ñu xalaat dajale lu ñu am yóbbu ko ci daara ma man naan loolu dañ ko war a rafetlu bu baax a baax leen ñaanal aussi lépp luñ ci def yàlla yàlla na ko yàlla barkeel dina wax ne am nañu mbégte bu baax a baax a baax parce que lii day wane rek que école ak daara yëpp daal ci benn famille comme nu ko président de la république defee woon tout récemment fexe woo daara yi pour wan leen aussi que ñëpp éducation moo leen njaboote donc loolu ñoom tey moom la ñu fii wane daaray que ci éducation ngeen book te lép li nga xam ne aussi war nañ ci mën a taxaw ñu daan ci te loolu déjà message bu foor la te ñu ne ci tànk yooyu lañ nekk allah donc loolu aussi ma ciy ko wax borom daara ak ndayu daara yi ak yëpp wax leen inspection bi aussi seen inspection la donc lépp lu ñu gis ni war na leen ci mën a jàppale u na ubbeeku nañ ci loolu pour mën leen ci jàppale parce que xale yooyu suñu xale lañ suñu njaboot lañ donc kàddu yooyu laa ci bëggoon sànni di rafetlu bu baax a baax wax dëgg yàlla taxawaay boobu di ñaan déwén incha yàlla def ñu gën a am doole gën a yokk li ñu doon def ba mu gën a taxaw incha allah donc mu nekk loo xam ne dañ koy saxal ci at yii yëpp di ñëw incha allah.